Serigne Touba Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba def leen nii magal Xaadimu Rasuul la gëm du gëm keneen Serigne Touba borom dana la gëm balay sa ku la weddi daa gënam wurus niroowul ak përëm ku gumbawul kay jëbbulu yow xol bi sama xol bi jox naa la ko sabu ngeneel bi yaa ko yor yow rek a mën a foot sama tër fóot ma te fóot ku jëbbulu yow yaa mën a faj biir biti man sama ragaraw siti na xëy ni fër nim yaa mën a musal ku jëbbulu sëriñ tuubaa yow laa amul soxlawu te lu keneen am bëgguma bëgguma yow man xiyaam yo baale ma dimbali gaa yi jébbalu yaa tax nu gëm dootu nu reer balay sa bu nun yaa nu gindi ci sa leer jox nga nu añ dig nga nu reer nun sa mburit yi jébbalu ma du yaa di genn góor sëriñ Tuubaa du yaa di genn sëriñ Diouf maa amatu yaa di génn góor aju la gànto ñàkk muur ku wal dugub mu des ca woor moo di ñëriiri jëppulu ëllëg na mbir yëpp di leer Aisha anda ke yow doy na baax ngir yow rek attan lii le ngaax bu ko sa fii keneen du baax demal ba tuuba jébbalu am nga àdduna ak alaaxira yow yaatee lu tàbbi sa defal lu wér ak sutura yow bamba nun ñi jébbalu am nga safaatul kabiir yoneen bi moo la jox lu wóor te ñëpp buur àddina séppay jëbbulu xéewal gi dootul jaaxatin sëriñ Tuuba xéewal gi dootul jaaxatin sëriñ Tuuba xéewal gi dootul jaaxatin ku lekk naan na santati sëriñ bi tax nu jëbbulu xam naa gi fippay wala ngaan ku faatu tappiari janaan daw siyaare poroxaan siyaare tuuba jëbbulu sëriñ tuuba yaaka yaa julli fa ndar bu dul ko nag yow diine far yowmal góor ñëpp ser nan sant xaadim jëbbulu sëriñ tuuba Ahmadu Bamba def leen nii ñu màggal Xaadimu Rasuul yaakaar di li fa Ndar bu dul ko nag yow diine far yow mal xiyaam góor ñëpp ser nan sant Xaadim jébbalu ni nga jàmm ak xiiwal ci réew mi yaa ma a fen mbugal yow mal xiyaam yaa nuy musal musal nu fi nu jébbalu aaju yëpp na bay faju ci barke mbër ma daa tëju ne amin te jébbalu